ñu bari ci taalibe yi doon sàkku ñu nett li leen xisab sayidina isa alayhi salaatu wassalaam daddi sayidina isa béréb yi ko sunu borom tudd ci alquran lu ci ëpp daf cay tuddaale way juram wu jigéen mariam te lu ëpp buy tudd mariam dana tuddaale zakariya mi yar Zakaria saa ko tuddee dina tuddaale Yaxya mu mel ni kon e, bu nu jiitaloon sayiduna Zakaria annabiyu alayhi salaatu wasalaam ak doomam Yaxya tudd sayidatuna Mariam doo ko tudd Isa jàngat ko dana doon lu solo moo tax ñuy wax nabiyullah léegi kon waxtaan wi tey ñu ngi bëgg a waxtaane Zakaria ak doomam ji ñuy wax Yaxya alayhima salaatu wasalaam turu Zakaria nag ñëw na ci eh, alquran lu mat juróom-ñaari yoon ci suratu Ali Imran ak ci suratu Maryam ak ca suratul An'am ak ca suratul Anbiya fu ci na suñu borom tudd na fa turu Zakaria waaye daf koy lëkkale ak Yaxya sun boroom wax ni wa zakariya ay yes naa de rabbahu rabbi laa tadarni fardan wa anta xayrul waarisin mun yonte bi fàttalikul leen xisab zakariya ba muy woo boroomam di wax ni yàlla yàlla ba ma bàyyi ma wéet ndax yow de yoway ngeen way donn tudd na ko ja suratu ali imran wax ne wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullu min asalihin wax ne zakariya ak yahya ak isa ak ilyas ñun ñëpp ci ñu baax ñi lañu bokk waaye ba muy tudd xisab maryam ak soxna si imran soo see doon ñaan doom bañ mañ ko maryam bi muy tudd xisa bi tudd nañ ci yar gi mu ko yar ci suratu kaafit noonu Zakaria nag aw askanam woote nañu ci waaye li ñu dëppoo daal mooy ni ci sati yonte yàlla daawud la bokk alayhi salaatu wassalaam daawud da bokk ci sati yahoza yahoza di doomi yaaquub kon min walad yaqub ibnu isxaq ibnu ibrahim abul ambiya mu nekkoon di denc soxna suñuy wax ashba bintu imran ashba moomuy ak mariam mi way juru sayiduna isa ñoo bokk ndey ak baay seen ndey mi ngi tuddoon xanna xanna moo nekkoon soxnas imran jur ñaar ñooñi imran mooy kan imran doom ibnu ku wax mataan ibnu yaamim moom itam mu bokk ci sëti daawud alayhi salaatu wasalaam asbaa moom yi di magi sayidatuna Maryam mooy way juru Yaxya ibnu Zakariya kon Yaxya doomu ndeyu sayiduna Isa la alayhim asalaatu wasalaam Zakariya mi ngi nekkoon di ab monise daf daan yett lu mu doon liggéeyam ni mu wàcce ci ni mu dikkee ci xadis yonante bi sallallahu alayhi wa Zakariya yahud yi dañoo siiwal ni moo def ñaawteef ci sayyidatuna Maryam ba tax ñu rey ko buñ koy rey dafa daw ba ci ak garab garab ga ne ko ñëwal yow na yow yent bi yàlla ñëwal mu làq la mu dugg waaye seytaane topp ci ginnaawam jàpp ci lafal mbuma mu tuut di ci feeñ ba ñu ñëwee mu yor jëmmi nit ni leen lu ngeen doon topp wut ñu ne ko dafa am ku ñu doon topp ba fii gis suñ ko mun leen mi ngi ci ron garab gi la tàggat da ko njabar ba dugg ci biir ñu ne ko de loolu mënut mu wan leen catul mbuumi ni leen mi ngi nii ñu rees ko ba ko ca garab gi xar ko ñaari gaal loolu mooy li sax te ibnu kasir andi ko muroju zahab bu masoudi it andi ko kon liñ saxal daal mooy Zakaria mooy ki nga xam ne moo duggoon ca garab ga ñu xar ko ñaari gaal ñu wax nag ni ashbaa moom yi di soxna si imraan nag bi mu amee doom mu yaxya dafa daw ak moom ngir buuri misra yi nga xamante ni dañ daan faagaagal nit ñu baax ñi mu ba doon magum jëmm suñu borom yónni ko ci bani Israël mu tàmbalee woote ci diini islaam di jaamu yàlla di woote ak jaamu yàlla di leen ragalloo mbugalum yàlla ci waxtu woo xam ne nag booba ak kàccoore dafa tasaaroo woon lool yàq-yàq yi bari lool ay buur yu kàccoore nekkoon fi booba daan tooñ nit ñi di yàq ci kaw suuf di def daal yoo xam ni doy na war dañu dawuñu sàmmoonte it ak orma yi seen yonente boobu ñu bari ci nit yàlla yi ñoo leen rey ñu bari ci yonente yi ñoo leen rey ñoom buur yooyu ba tuur lu bari ci ay deret ka ca gën a lu gën ca ñàkk solo nag moo ko ñu wax Hérodes Hérodes mi nekkoon Palestine nekkoon fa ab gouverneur moom moom mi moo digle ñu rey Yaxya te jubluwu ci dara lu weesu seral xolub jigéen ju mu doon bëgg rek dana ñëw ci xisab Yaxya incha allah ci kanam Zakariya moomu dajeeg daje nag lu bari ci ay lor ci bani Israil ak àttekat bani Israil lor ju taratar mu daje ci moom njàqare yu bëree bëri toftaloo ci kawam aki i tartar yu diis waaye lépp mu muñ ko rek muñ gu rafet moom zakariya bi mu demee nag ba néew doole màggat da ñaan sun borom te sun borom nett li ñaan gëm ñaanam ci alquran wa zakariya isnaadi rabbahu nidaan xafiyan qaala rabbi inni wahana alcazmu minni washtacala alrasu shayba walam akun biducaaika rabbi shaqiya kaaf heye ayin saad dikru rahmati rabbika abdahu zakariya is naada rabbahu nidaan xafiya qaala rabbi inni wahana alazmu minni wa ishtaala alrasu shayba wa lam akum bi duaaika rabbi shaqiya te loolu mooy fàttalikul waxtu wa Zakariya di woo boroomam woogu suufe heure bu guddi ñëpp ni tekk mu ñaan yàlla ne ko man de néew naa kattan bi jaaw naa te it li ma la daan ñaan lépp di dawuma dawuma ci gis ludul dul ak wuyu tamaloo ma lu dul wuyu ñaan bi mu ñaanee nag ñaan ko gi ci la ko suñ borom maye doom muy yaxya zakariya moomu nag moo yar sayidatna mariam Zakaria dafa dencoon mbokk Mariam loolu la ñu bari ci borom xam-xam yi wax ak donte am na ñeneen ñuy wax ni yaay jundawi Mariam la dencoon waaye ñu bari ci ñoom li dëppoo mooy mbokkam magam mu jigéen magam mu jigéen la yoroon Xanna mi nekkoon soxna sa Imran bokkoon ci jaamukatu yàlla yi bokkoon ci jigéen ñu baax ñi moom itam màggat te amul doom doom ju góor amul doom ju góor waaye benn bis mu nekk ci ron ak garab gis am picc muy lele ak cuujam xelam mm, xemeem lool doom ju góor mu ñaan yàlla ni ko ba mu mayee doom ju góor néser ni ko dama koy boole ci jaamukat yàlla yi nga xam ne dañuy féetewoo jaamukaay jàkka ji di liggéeyal jàkk ji di liggéeyal nit ñi di liggéeyal yàlla ci biir jàkk ji loolu mooy maa mooy inni nadartu laka maa fi batni muharraran fa taqabbal minni booba Nasir mi ngi daan nekk nit ki fab doomam jox ko yàlla bu koy jox yàlla it day dem jox ko joxe ko ci jàkk ja mu bokk ci ñay liggéey di bale di defar féete fa du fa jóge mukk te du dafa dem ba majeur bu demee ba doon mag nag ba ba foofu nag mooy tànn bu bëggee sax wéyal liggéey boobu jàkk ji baax na bu bëggee dem yoonam it mu dem yoonam waaye bu muy doon gone daal nga koy joxe foofii jox ko yàlla mu nekk ci jàkk ji di liggéey waaye mu ni Imraan mi nekkoon borom këram it nag bi muy faatu booba mi ngi ëmb moom soxna si boobu mi ngi ëmb sayyidatuna Maryam moom alayhi salaam bi mu amee doom gis muy jigéen mu ni rabbi inni wadaatuha unsa dana li ma ne seeroon day bëggoon mu nekk ci jàkka ja di leen liggéeyal day jur naa ko muy jigéen te jigéen day xam naa ni mënut loolu ndax li koy gaar ca ay regal ak yu demee noonu daal ni wa inni u'iizuha bika wa laysa zakaru kal unsa suñu borom dani wallahu a'lam bima wadaat yàlla xam moo gën a xam lam am wa laysa zakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam daal ni góor de bokkut ak jigéen ndax la góor di man ca taxawaayu jàkka jigéen du ko man maa ngi ko tudd nag Maryam Maryam nag li muy tekk al aabida al xaadima jaamukatu yàlla buy liggéeyal yàlla ci jàkk ji wa inni u'iizuha bika wa dhurriyataha min ash-shaytaani ar-rajim mu ne maa muslul nag ci yow moo koy sëtam moo koy doomam maa ngi leen di muslul seytaane xanna bi mu amee doom ji muy jigéen mu ñaan ñaan googu yi daf ko daal lëmës ci aw morso daal di koy yóbbu ci jàkk ja jox ko boroom xam-xam ya fa nekk ñu doon seti Haaruna ñoo ñu daan féetewoo baytul maqdis ni ba ni banu Shayba di féetewoo kaaba gi rek di ko yor ñoom ñoo féetewoon loolu ñoom mun leen jël leen kii ab Naseer la bu ma Naseeroon waaye ñu dal di koy jëkkante ngir doomi seen imaam la di doomi seenub sang di imran imran ci boroom xam-xami bani israil yu baax yi la bokkoon ba noppi doonoon kilifa jàkka ji jamono boobu ñu daan def kuñ fa masaan indi ca jàkka ja dañuy tegoo ay bant ba xam kan moo ko ci war a yor bu ñu andee kuñ neseeral jàkka ji ngir mu liggéeyal jàkka ji ñoom kilifa ya fa nekk dañuy tegoo ay bant ba xam ku ko ciy féetewoo Zakaria boobu moo nekkoon yonante ci jamono boobu mun leen maa ci gën a yaay ngir man la magam nekk fii fi man ma téye ko yar ko moo gën waaye rek ñu gàntal loolu yi ni ko daal fokk dañ koy tegu ay bant rek nañu tegu bant yi mooy dañuy sànni seeni xalima ci dex gi dexu ordon koo ci xam ni xalimaam fee na ci kaw ndox mi moo gën a yaay ci yar doom joji ñu daal di dem ca dex googee sànni seeni xalima yañ daan bind tawreet xalima Zakaria fee ci kaw ndox mi ñoom seeni xalima diig Zakaria jël ko yóbbu ko ca soxnaam sose nga xam ne mooy yaayu Yaxya mu toppatoo ko nàmpalul ko ba mu màgg mu yóbbu ko ci benn saal ci biir jàkka ji foo xam ne ku fa yéeg fokk ci ab échelle ngay jaar pour mun faa àgg kenn du fa dem ku dul moom Zakaria bu masaan génn dafay tëj bunt bi yor caabi ji wóoluwu ca kenn saa bu soxna si mbasaan gis regal mu génnee ko yóbbu ko këram mu nekk ak mbokkam moomee di yaay yaxyaa booba muy jeexal regal bi mu doon ko indiwaat Sakariya daan gis nag lu bari ci ay karaama ci ni sunu boroom wattoo soxna soos yi daana ci gis lu ko yéem naka jëkk loolu mooy li suñu borom wax ci alxuraan ni fa taqabbalaha rabbuha bi qabuulin xasanin yàlla nangu ko nangu gu rafet wa ambataha nabaatan xasanan saxal koy sax gu rafet wa kafalaha wala wa kafalaha zakariya zakariya mu yar loo mbaa mu yar ko rek am na ñuy bind wa kafalaha Zakaria yàlla yarloo ko Zakaria am ñuy bind wa kafalaha mu yar ko Zakaria nee na kullama daxala alayha Zakaria mihraaba wajada indaha risqa saabu Zakaria dugg see foofi ci mihraab bi fi muy jaamoo yàlla fekk mu ni ko yaa Mariamu annee laki haza lii foo ko fu la bawoo qaalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashaau bi geyri xisaab li ci yàlla bàyyi nag mooy wërsëgal ku ko neex ci lu am ci ñenn nag ci mufassiroon yi ñuy wax ni dara de saa bu fi ñëwee dafa fekk fur wi fur wi boo xam ni dëkk bépp sax amu fi nit kenn du ko gis fenn am ñu ni fourbe yi noor lay doon ci jamonoy sedd jamonoy tàngoor mu gis fourbe yi jamono sedd ci jamonoy tàngoor bu dee jamono jamonoy sedd it mu gis fourbe boo xam ni jamono tàngoor la war a am mu doon karaama bu ko suñu borom defal soxna si doon ko ab jaamukatu yàlla moom sayyidatuna Maryam moomu guddi ak bëccëg muy jaamu yàlla bañ di ci sadd aw lépp ci mën a toppam yàlla ci benn Israël gépp di naan diw de mën a jaamu yàlla ba mel ni Maryam lim siiwe woon it mooy melokaan yu rafet ak jikko yu tedd loolu tax nag loolu nag indi na indil na bi xalaatug ni ginnaaw sunu boroom mën na ko andil lii ci jamono bii mooy fure fure bii war a am ci jamono sedd mu may ko ko ci jamono tàngoor fure bi am jamono tàngoor may ko jamono sedd ginnaaw sunu boroom mën na loolu daal war na mën a may doom ak limu muy nur nur lu yenu di ku maana te booba mag la soxnaam it waxuma la sax mag gi waaye dafa ca boole woon doon ku jaasir jurmel doon jigéen joo xam ne dawul am doom naka jekk ba mu doon gone mu boole ci nag di màggat boole si waaye bi mu gisee karaama gu yéemu googu rek yàlla defal ko sayidatuna Mariam mu xam ne lu ne mu delloo rek kàttanug yàlla daal di ñaan suñ borom mu may ko doom ju ragal yàlla joo xam dana ko donn ci xam-xam ak nubuwa yi di jàngal nit ñi aw yiw hunaalika daha zakariyaaw rabba foofee la zakariya wooye boromam ni ko rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibatan innaka samihu du'a maa ngi ñaan nga may ma njaboot gu baax ndax yow day kuy dégg ak ñaan ci beneen aaya bi mu wax ca ne wa inni xiftul mawaliya min wara yi wa kaanat imraati xaaqiran man di ragal naa sama mbooloo mii ca sama gannaaw ñu yàq sama gannaaw mbaa kenn du leen teg ci aw yoon te sama soxna si dafa jaasir du am doom léegi nag sa kàttan ñaan naa la nga may ma doom ju ma mën a wóotu ci taxawal di diini ji ak saytu njaboot gi mooy fahab lii min ladunka waliyan yarisuni wa yaris min al yaqub waj'alhu rabbi radiya foofu mu nett li suñu borom nett li foofu wax jum wax ak yàlla ni ko may ma doom joo xam ni dana ma donn di donn ak nubuwa ak xam-xam ci àllu yaqub nga def ko mu doon ku ñu gërëm te surtout Mariam donn ma ci xam-xam ak nubuwa ak atte bi ci bani Israël ni ay baayam daan def baayam muy sëti yaqub bi waaye jubluñ ci sax euh, donnuk alal waaye Zakaria ginnaaw bu mu ñaanee yàlla doomam jooju suñu boroom bégal ko yabal ay malaayka ñu xamal ko booba mi ngi ci mihraab ba di julli ni ko suñ boroom may na dana la may doom ju tudd Yaxya doom ji turam woowu kenn musu ko am amut aw tur amut turandu fa naadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fi lmihrab anna allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimati min allah wa sayyidan wa hasuuran wa nabiyan min alsaalihin malaayka yi woo ko boobu mi ngi taxaw ci mihrab bi di julli ni ko yàlla dina la bégale doom ji tudd yaxya mu doon kuy dëggal baatub yàlla te mooy mooy ki jëkk gëm isa nangul ko nangu ni kalimatullahi la doon ab sang di ko aaru di ab yonante bu bokk ci way baax yi suñu borom dal ni yaa zakariya inna nubashiruka bi gulaamin ismuhu yahya lam najal lahu min qablu samiya loolu mooy amut aw turandoo wu noonu jëkk ko bi yonent yàlla zakariya biñ ko suñu borom ci doom jooju mu wax yàlla mu tàmbuli nag di sàkkoo gëstu di laaj ci anamuk yéemu rek yéemu ni jublu sax sikki sàkk waaye yéemu ci kàttanu yàlla googu jubluwu ci sikki sàkk waaye yéemu la ci jublu ndax ambiyaa u yëpp ay xaarifana billaahi lañ ay yin lañ am seen diggante seen borom ci ne yàlla lépp la man waaye rek mu yéemu daal ni rabbi an naa yakun li xulaamun wa kaanat imraatii aaqiran wa qad balagtu min kibriya 'utiyyan laay ame doom te man dey sama soxna dafa jaasir te it màggat naa wax nañu ni boobam mi ngi am juróom-ñeent fukki at ak juróom ñeent fukki at ak juróom soxnaam am juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett ba noppi ba muy doon gone sax dawul am doom jaasir la defoon waaye noonu la ko suñu borom tontoo malaaka yi tontu ko ne ko kazalika xaal rabbuka huwa alayya hayyin noonu la ko sa borom waxee te yàlla nee na lu yomb ci man la te bindoon naa la doonoo dara ki la bindoon doonoo dara nag war na laa mën a bind a bind dara ci yow ak sa soxna ginnaaw bu ngeen amee yéen wa ala kulli shay'in qadir mu ñaan sun boroom ne ko kon wan ma màndargam ne doom joji bu ko soxna si ëmbee lan mooy màndarga mi mooy rabbi ja'al li aaya mooy wan ma màndarga xaala aayatuka allaa tukallima naasa salaasa la yàlla sa yan mu ne ko sa màndarga mooy nga dem ba saw làmmiñ tëju doo mën a wax nit ñi benn baat te jotu la waaye wax nga dul man saa boo gisee loolu rek na nga xam ne mandarga maa ngi noonu bi demee ba gis mandarga moom mii mu génn ak mbégte dal di junj ak njabootam ni leen an sabbiha awhaa ilayhim mooy mu junj leen an sabbihoo bukratan wa asiyya dee leen sabbaal ci suba yi ak ngoon yi ñu wax na ni ko suñu borom wax ne ko man ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا ñeen def ko ko wax ne ko del tudd sa borom ci sa xol lu bari ñan ñi ni déedéet day def saabu bu bëggee tudd yàlla moom yàlla lam ñi dina boy ci tudd yàlla waaye mënta wax ak nit ñi lu loolu mënta wax ak nit ñi dara mu junj leen ne leen sàbbaal leen yàlla suba yi suba ak ngoon mooy julli ci suba gi ak ci ngoon gi suñ boroom nag jàngal nañu ci jaamam boobu di Zakariya bi mu sàkkoo sunu boroom may ko doom juy àtt ci beneen Israel yàlla wane na ne wuye na ñaan kooku jàngal nañu ci alxuraan yi ñaan googu bi mu ko ñaan wa zakariya isnaadi rabbahu rabbi laa tadarni fardan wa anta xayrul waarisiin fastajabna lahu wa wahabna lahu yaxya wa aslahna lahu zawja kon saxal na ni zakariya ba mu wooyee boromam ni ko bu ma bàyyi ma wéet ndax yaay ngeen ji way sun borom nee na nu wuyu ko may ko yaxya defaral ko soxnaam kon mbirum zakariya gént loolu yi dem ba màggat soxnaam màggat ñu dem ba naagu ci jàpp dootuñu mën see am doom waaye mu jàpp ci xam kàttanu yàlla nangu ko ñaan ko yàlla nangul ko ñaan ko gi faatug Zakariya Zakariya ak faatoom yahood di ñoo ko rey wax nañ ne li sabab rey ga mooy bi ñu siiwalee ci bani Israil ni Maryam dafa tollub diggante naafiq yi dañoo tuumaal Zakariya ni moo ko def ñan ñu tuumaal ko ku ñuy wax Yuusuf an Najjaar ku daan jaamu yàlla ca biir jàkka ji moom itam waaye wax nañu ni tuuma joju ci lañu teg rey gi ñu ko rey moom Zakariya wax nañu ni dafa dem ba dugg ci ak garab waaye dañoo riis garab googu mu xar ñaari gaal moom Zakaria ñu rey ko rek ci kaw tooñaange ci loxol yahud yi mu faatu doon shahid am ñu wax ni lii sababu rey gi mooy ba ñu reyee doomam Yaxya dañ ko rey ci ndigalul gouverneur de bi ñu wax Hérodis ginnaaw buñ ko rayee ba noppi dañoo yónnee di wër baayam Zakaria mu làqatu ñu dugg ci topp ko ba mu dugg ci ab tool rombo ak garab garab ga woo ko ni ma ko waxoon sànq ci kàttanu yàlla ni ko ñëwal yow yonent bi yàlla bi bi mu ñëwee garab gi xar ci kàttanu yàlla mu dugg ci biir waaye mu daal di këpp tàppuwaat tàppoowaat ba mel ni dara newu fi waaye noonu yàlla bi di iblis ñëw jàpp ci catul mbu mi fexe ba dara di feeñ ci moom bi mu ñëwee mu wax leen ni leen lu ngeen di wër ñu leeral ko ko mun leen mi ngi fi dëggaluñ ko mun leen catul mbu maa ngi ni ñu des garab gi ba xar ko ñaari xaaj waaye ginnaaw bi sunu borom yabalal na leen ki yées ci nit ñi moom itam mu fayul Zakariya moom fay gu metti ndax rey na rey gu tara tara tar ñoom bani Israël suñ borom net li nanu tooñug yahud yi ak rey gi ñu daan rey yonante yi ci alxuraan nee na afa kullama jaakum rasulum bi ma la tahwa anfusukum mustakbartum saa bu leen ab yonante ñëwalee indil leen lu neexul seeni bakkan ngeen rëy rëylu fa fariqan kazabtum wa fariqan taqtuluun di loolu wax ci alquran ni fa bima naqdihim misaaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihim al anbiaa bi xeyri xaq ci fecc gu ñuy fecc kulëre ak weddi gu ñuy weddi kiimaane yàlla ak rey gu ñuy yi ci lu dëgg wa qawlihim qulubna qulfun bal tabaa allahu alayha bi kufrihim fala yuminuuna illa qalilan ci suratu nisa kon duros yi ñu ciy ci xisab Zakaria boobu la ci jëkk rekk mooy solos ñaan ñaan am gum am solo ci ab jullit euh, te mi ngi feeñe ci soxna si Imraan mi jëkk ñaan yàlla may ko koo xam ni dafay nekk di cërub jàkka ji ba ko suñu borom defee muy jigéen def na ko mu doon jigéen joo xam ni Euh, ko xar baax la ci ak jaamu yàlla ak ci dëddu àdduna ba moo jur yonent yàlla Isaa mu bokk ci ulul mi mina rusul kon ñaan ëpp naa zagane naka noonu Zakariya moom itam bi mu gisee karaama bi suñu borom defal sayidatuna Mariam mu dal di ñaan boroomam euh, lam jàppoon ne lu jomb la daanaka waaye mu ñaan xam ni kàttanu yàlla mën na lu mu ñaan ko yàlla taje eh, mooy hunaalika daan Zakaria u rabba jële nañ yet ci Abu Hurayra radiallahu anhu mu wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ni guddi gi bu ñetti xaajam demee bu xaaju guddi gi demee sulus sulus bu njëkk bi wala xaaju guddi gi eh, sunu borom day wàcc ba ci asamaan si ngay jëkk a jot daal wax ni ndax amul kenn ku may laaj dara ma jox ko ko ndax amul kenn kuy jégalu ma jégal ko ndax amul kenn kuy tuub ma jéggal ma tuub ma baal ko ndax amul ku may ñaan ma wuyu ko xadis boobu buxaari yu ak muslim tirmisi ibn majja nasaa'i ak imam malik ak addarimi yi ñoom ñëpp nettal nañu ko muy xadis bu wér kon xissa yii dañ koy tudd da ko suñu borom daf ko wax ci alquran ngir bëgg nu roy leen nu roy su yonente boobu ci xam ni kàttanu yàlla mën na lu ne ñaareel bi liñ ciy jàngee ñaareelu dërs bi e, mooy yàlla ku mu àndal bu àndee yow nit ñi dañuy jëkkante ci defal la bu àndul ak yow nag ka gën a jege moo lay jëkka won gannaaw loolu dafa leer lool ci jëkkante gi ñu doon jëkkante Sayyidatuna Maryam ngir yar ko ba bëgg ca xeex ba atan caa xuloo wa maa kunta ladayhim iz yulquuna aqlaamahum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kuntu ladayhim is yaxtasimun waaye ñetteelu liñ ci jàngee mooy karaamaatul awliya maanaam teraanga ji suñu borom di teral ay wàlliyam xissa boobu ñu ngi koy jàngee xissa boobu di wax ni euh, soxna si euh, dañ fay fekk wërsëg wërsëg wi ñii nee nañ furwe doon ci jamono jum warta mën a am muy jamonoy sedd mu gës fa furwee jamonoy tàngoor jamonoy tàngoor mu gës fa furwee jamonoy sedd léegi borom xam-xam yenn nat yi ne déedéet xam-xam la boo yàlla jox boo xamante ne eh, daf ko yéem moom ci yéem bopp moom si yàlla Zakaria waaye wërsëg la daal wërsëg bu ñu maa doon rek karaama la eh, ñu di ci jàngee rek ni amul benn jullit buy góor-góorlu digganteem ak boroom sàkku cofelu yàlla te du suñu borom dana ko teral Euh, dana ko jox teraanga teraanga ju ne moo xam daf koy xaral baax wala lenn ci luwaay ñu bëttal ko ko muy fi ñu daan jaar ngir nangam moom bañ ko fa jaarale wala dara lu ràññi dara lu ko rek waaye jullit bu dëggal ba na diggante sama borom daal teraanga jooju sama borom dina ko defal waaye ñu jàng ci ne ndeke ñeetaane daga na ñeetaane nag Zakaria dafa mébét am doom ju baax ju mel ni soxna si joo xamante ni ku ragal yàlla doon euh, ku ko mën a téyal gannaaw mel ni yëg-yëgu gis nit ko am lu la yéem nga yéem ko bëgg ko ñaan ko yàlla loolu doomu aadama la ko yàlla taqarir bu dee lu jëm ci àdduna moom la ñuy bañ nga di ko mébét ndax mën naa andi nit ki ci kañaan waaye bu dee lu jëm ci yàlla moom moom la ñuy aw tagg lay doon ci nit ki ndax nit ki saa bu gisee cër bu nit am ci moom mébét ko góor góor lu ci jëm ca loolu moom lu diina tag la waaye bu dee mbirum àdduna nag euh, mébét lenn lu nit am ci àdduna sax dañ koy bañ nga xam ngir mën naa yóbbu nit ci euh, kañaan kon yëg-yëg bi benn bi la waaye bu dee lu jëm ci mbirum yàlla euh, luñ tag la bu dee lu jëm ci mbirum àdduna nag tagguñ ko muy yëg-yëgu gis lu nit am nga am ca xaymamteef di ko mébét moo tax suñu borom ni wala tatamannaw maa faddala llaahu bihi baadakum ala baad bu leen fekk mukk lu nit eh, may yàlla mayug yàlla gu yàlla may ab ngeen di ko mébét bu dee ci mbir mu àdduna la bu dee ci mbir mu àdduna ndax bu dee ci lu mel ni eh, lu jëm ci mbirum yàlla ñeetaane bëgg nañu ko ci ndax boo ko ñee rek da nga jóg sàkku te boo ko sàkkoo yàlla mën la ko may yonente bi nee na laa laa xasada illa fi snayni iñaan de amul ci yenn waaye fekk ne baatub kañaan la jëfandikoo foofu waaye ribta ñeetaane la jublu ñeetaane day warta am ci lu dul ñaari mbir lu dul ñaar ñi ñaar ñi képp de bu ñeetaane amee ñoom lañu war a ñee muy nit koo xam ne suñu borom daf koo may alxuraan mu koy taxawee guddeeg bëccëg ak nit koo xam ne suñu daf koo may alal alal jooju mu koy dépensé ci yoon yàlla guddeeg bëccëg ñaar yooyu donc nga jar a waaye dinañ ci jàng it ba tey solo si yar ndax yar gi mu yaroo ci loxol yonente boobu muy Sakariya moom soxna si tax na mu bokk ci tànnee fi jaamukat yàlla yi ak àdduna lépp daje ci moom ci lu ñuy sàkku ci nit ku baax waaye ma ne xissa yi nag jublu ci rek mu doon xissa bu ñuy net li nga xam ne nii la demee woon waaye lam ca jublu ci ab jullit mooy ñu doon mu doon royteef ci nun ndax yonente ñooy yamukaayu doomu aadama yi kon nañ leen jàppe roytee fuñ jaaroon fu ne rek aw yoon la imraatu imraan neser gi mu neser li mu ëmb neser koo jox yàlla ngir mu di ko liggéeyal ca jàkka ja nit ku ne def ci war ko war a toppandoo seet loo mën nga jox ko yàlla fab sa doom joxe ko ngir jëmm yàlla fabal sa joxe ko ngir jëm yàlla yaay Anas ibnu Malik day ba yonante bi ñëwee Madina def ko andi ci yonante bi ni ko xos xawaay demaka wadduhullaha lahu jëlal kii muy sa curga di la liggéeyal te nga ñaana ko yàlla kon kooku mel ne na moom euh, toppandoona imra atu imran ci jox gum jox doomam yàlla ngir muy jaamu di liggéey di xidma di liggéey rek ngir jëm yàlla léegi naka noonu dañuy bëgg jullit bu ne di roy lu mel noonu yi bu léegi loo mën rek joxeel joxeel sa alal joxeel sa sa joxeel sa temps sa sa sa sa jamono ngir sa heure ngir jëmmi yàlla lépp nga liggéeyale ko yàlla euh, loolu luñ bëgg la ko toppandoo ci soona seen Imran Soosi loolu la ñuy tuddee waaye dinañ jàng yi ni la gën a jafe ndekete boo ko ñaanee suñu borom mën na ko yombal la meloon ni lu jomb sax ndekete bul jàpp ni dara jomb na ci kàttanu yàlla lu mën a doon jógal ci guddi heure bu guddi ñaan yàlla sellal te am kóolute ne dana woyu sa ñaan googu situation yow mën a dund bëgg mu soppi ko ñaan yàlla mu soppil la ko ñaanal yàlla mu soppi la liggéey booy liggéey te bëggu ko ñaanal yàlla mu soppil la béréb boo nekk te bëggu faa nekk mu jàpp ndal la lépp loo bëgg nit ko def ko war a ñaan yàlla lépp jafe-jafe bu mu mën a doon boo booy dund te neexu la ñaan yàlla mu soppil la ko ñaanal yàlla bu fekkee da ngaa yëg jikko ju nekk ci yow te bëggoo jikko ju neexu mu dindi la ko nay la bu dee ak ragal bu dee lu mën a doon rek nit ki mën a yegg loo xam ne day xam ne jikko jiikat nekk na ci moom waaye neexu ko am nga doom mu mel noo bëggu ñaan yàlla mu soppil la ko nga doom jigéen ju mata si gisu kenn ñaanal yàlla mu jàppandal la ko waaw nga tawat joo xamante ni jëkk ngay dem ci docteur bi rek léegi ñaanal yàlla tawat ji dem nga ba ci docteur bi docteur ni lii mënu ci dara ñaanal yàlla léegi bul jàpp ni dara jomb na ànd ak kàttanu yàlla loolu kon moom mooy xisab euh, euh, sayiduna ak lañ ciy jàng bu dee euh, moom daanaka moom xisaam guddul ci ni ko alquran lee ndax daanaka boo xasee tudd ni Eh, may naa ko doom ju wax yaxya lam ca nettali ca suurtu eh, mariam day mooy lim ko digal moom suñu borom yaa yaxya xuzil kitaaba bi quwwa wa aataynaahu l xukma sabiya mu ni ko nag alxu téere bi jàppe ko doole daal wax it ni jox nañ ko xikma ca ba muy doon gone xikma xanaanan min ladunaa wa zakatan wa kaan taqiyan defal ko yërmande defal ko ak sell mu doon ko ragal yàlla wa barran bi waalidayhi doon nit ku daan topp ñaari waajuram walam yakun jabbaaran hasiyan nekkul woon nit di kuy topp bakkanam de mooy yàlla daal di ne wa salaamun alayhi yawma walida wa yawma yamuutu wa yawma yub'asu hayyan waaye nag yàlla defal na ko ak mucc ca bam juddoo ak buy faatu ak buñ koy dekkal muy ñetti birab yoo xamante ni eh, ci nit gën a aajowoo ak mucc te it dañuy wax nag ni téere bi moom kenn mënu ko jàpp ak doole te tu da nga koo jëkke xam ba noppi eh, door koo jëkk door koo jéem a jëfe imaam ahmad euh, nettali na ba tey jële ci xaaris al ashari ni yonente bi sallallahu alayhi wax na ne yàlla dafa digaloon yaxya ibn zakariya juróomi baat niko ko na deen te digal ko bani israil ñu jëfe ko waaye mu xaw ko yeex a jottuli isa ni ko yow de digal nañ le juróomi baat nga jëfe ko digal digal bani israil ñu jëfe ko benn nag nga jotal leen ko mbaa nga bàyyi ma jotal leen ko nee na mu ne ko yaa axi yow sama mbokk man di ragal naa boo ma jiitoo dem jottali ji ko rek yàlla mën na ma ca mbugal mbaa mu muur suuf si ci sama kaw nee na noonu Yaxya daal di dajale bani Israil ci baytil mukaddas jàkka ji fees dell mu toog ci aw tundu sant yàlla tagg ko ni leen yàlla digal na ma juróomi baat yoo xam daf ma digal ma jafe ko digal leen ngeen jafe ko ba ci jëkk mooy ngeen jaamu yàlla bañ koo boole ak dara ndax loolu de euh, mu ngi bokkaale de mi ngi mel ne nit ku jënd ab jaamam ci alalam ju sell waaye jaam ba tàmbali saa bu liggéeyee fab la muy liggéey dem yët ko beneen sang bu bokk te moom mi ko jëndoon kan ci yéen moo bëgg lu mel noonu wóor na leen bëggu leen ko ñu ne ko waaw mun leen nag noon la noonu ngeen demee ak seen borom yàlla moo leen bind di leen wërsëgal kon jaamu leen ko te bu leen ko booleeg dara digal na leen julli yàlla day kanamam daf koy ja daf samp mu jaakaarloo ak yow booy julli ab jaamu buy julli bu ne suñu borom a ngi jaakaarloo ak moom li fekk geesuwut kon bu ngeen di julli julleeti leen di geesu Zakariya ni leen suñ boroom digal na leen woor te koor day ni ma leen ko mën a misaal mi ngi mel ni nit koo xam dafa yor biteelub misk ànd ak mbooloo ñoom ñépp ñu yëg xet gu neex ni leen nag xetu gimiñu koor moo gën a neex fa yàlla gëttug misk woogu ma leen wax xetug misk woogu yàlla digal na leen sarxe loolu it ma leen ko doon misaal mi ngi mel ne nit koo xam ne ay noonam dañ koo jàpp yeew ko ba mu dëgër indi ko ngir bëgg koo rey mu ni leen ndax mën na maa jotu ñu d'accord rek moom ci jotu gi muy jotu ndànk ak li joxe par tuuti ak lu bari ba bañ bàyyi ko mu dem mu leen ab sarax noonu lay jote nit ki noonu lay jote nit ki ci lépp lu ko war a gàllankoor suñ borom digal na leen ngeen di tudd yàlla lu bari loolu nag mi ngi mel ni nit koo xam ni ba tey ay noonam dañ ko doon topp topp ko topp ko ba mu fekk benn sange bu aaru mu dugg ci biir sange wu ca ni leen jaam bi fi mu gën a aaroo ci seytaane mooy na mu gën a baree nu muy tudde borom nit ki lu gën a baree ak tudd yàlla gën a aaru ci seytaane kon loolu sange la nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la waxee ni may itam nag danaa leen digal juróom yoo xam ne suñu borom digal na ma ko muy na ngeen taqoo ak mbooloom jullit mi na ngeen di dégg ndigal na ngeen di topp ndigal ak gàddaay ak jihaad ci yoonu yàlla képp ku génn mbooloo mi day lu toll ni ab sebre na nga xam ne summi nga buumu kolere gi doxoon sa diggante ak diine yi islaam dara ba nga desi képp ku woote wo woote jaahiliya jaahiliya na xam ni ci ci mbubitum safara la bokk mattum safara ci lay bokk ñu ni ko yow yonent yàlla bi ak doonte day war ak julli sax mu ne ak doonte day oor ak julli wax nee ab jullit la dee leen wooye jullit yi seeni tur yi leen sunu borom tudde muy almuslimina almuminina ak ibadallah dee leen wooye ay jullit di leen wooye ay way gëm di leen wooye ay jaam yàlla loolu yi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ma itam digal nañ ma ko digal naa leen gi nga xam ni moom soñ boobu dëddoon na ko àdduna muy Yahya ibnu Zakariya dañuy nettali ba tey ne dafa doon daan wéet lu bari euh, di dem ci àll yi di lekk xobi garab di naan ci ndoxi dex yi di dundee ay njëreer ci lenn ci jamono yi ba noppi nag jàpp ni de wax ne ana kan moom a gëna xew xewu man yaxya yow yaxya kan moo la ëpp xewal ibnu asakir nettali na ni ñaari way juram mas nañoo gën génn di ko seeti ba mu ngi doon gone ba mu génn ba ci ngoneem ñu génn ba fekk ko ci bu xayratu ordon nga gis ordon bañ ko gisee mu jooylu leen jooy yu tar ngir nañ ko fekke ci ak jaamu yàlla ak wurgal yàlla ba ñoom ñaar dañoo jooy jooy yu tar bu jël na ci Malik ibnu Wahb moo jële ci Malik mu jëlee ci Humayd ibnu Qays mu jëlee ci Mujaahid mu wax ni Yahya ibnu Zakariya da daan dunde ñax da daan jooy ngir ragal yàlla ba dafa mujj jooy euh, def lu mel ni am aw rëdd wu ñuul ci ci lex yi Ibnu Mubarak wax na ni nett la moom itam jële ci waxee bi nul ward mu wax ne Zakaria dafa mas a ñàkk doomam jooju di Yaxya ñett fan yoo xam ne gisu ko mu génn di ko sàkku di ko wër ci àll bi ba fekk mu gas lu mel ni ab bàmmeel dugg ci biir sax fa di jooy mu ne ko ay yow sama doom ñetti fan ma di la wër nga ñëw fii gas fi am pax dugg ci di jooy nii mu ne ko yow sama baay du yaa ma waxoon ni ma diggante aljanna ak safara manding mu rëy la moo xam ni la la la ñuy war pour pour moom mooy la ñuy war pour jégg ko mooy jooy jooy way jooy mooy war waay bi ñuy war ngir dog diggante aljanna ak safara mu ne ko jooyal yow sama doom yaa di wax na ni Yaxya daana wax ne waa aljanna du ñu nelaw ngir bànneex ba ñu nekk ak xéewal yi ñuy dund naka noon it yellut ci siddiqoona yi ñuy nelaw ngir li ñuy yëg ci xéewal ci seen xol ci cofeelu sunu borom wax nañ ko ba doon ay jooy la sababu rayug Yaxya li ñu wax nag ni moo sabab euh, ñu rey ko tudd nañ ci ay asbaab yu bëree bari mm, waaye li ci gën a siiw daal mooy ñenn ci buur yooyu mu jamonoonteel ca Dimashq da ci am buur bu bëggoon a denc ci soxna sumu aramanteel wala daal koo xam dëgganut mu di ko takk Yaxya kere ko ko loolu nag des ca xoolu soxna si ba ñu demee ba jaxasoo ci nañ ko bëggee mu ni ko loo bëgg tey ñaan ma ko may la ko mu ni ko dereti yaxyaa laa bëgg nga may ma ko buur bi daal di yabal kooku mu may kooku mu dal di yabal moom jigéen ji ku ko rayal yaxyaa indil ko bopp bi def deret ji ci benn beer waaye wax nañu ba mu ko defee ca saas la di faatu moom jigéen jooju ko am ñeneen ñu ni dafa am jigéen ju ko bëggoon moom yaxyaa ci moom mu bañ ba mu demee xam ni mën ci jot ci mu def ci ay pexe fexe ba ñaan ko buur ba mu may ko ko mu yónni ñu ray ko indil ko bopp ba def deret ji ci benn weer wax euh, ka ñuy wax Saïd ibn Musayyib na ni mboxti na sar ba mu ñëwee Dimashq dafa fekk deret yi di fuur mu laaj ñu wax ko mu rey fa juróom-ñaar fukki junni nit ngir jote ko deret jooju fuur ga doog a dal loolu nag isnaad bu wér la e, ba ci Saïd ibn Musayyab kon lañ cey dégge mooy moom Yaxya ibnu Zakariya ñu ngi ko rey ca Dimask xissatu baxt na sarit leer na ni kon ginnaaw Isa la amoon ni ko Xata ak Xasanul Basri waxee wala alam kon loolu mooy Euh, liñ doon jàngat ci xissab euh, Zakaria ak Yaxya bu benene incha allah ñu àndi xissatu sayidatina Mariam ndax ñu mën a dugg nag ci xissab sayidina Isa alayhi salaam jàngat ko jàngat dini nasran jeeg nañuy doxe ak la ci aju di naan yàlla mu def nag dégg ak topp ak jëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa